waxtaan ak ñoom ci bés bi nga xam ni moom lañ moom lañ leen jagleel mu nekk bés bu spécial tey nag dinañ dugg ci ñoom à l'improviste xam ni yëguñu ni sax dañ fay ñëw mais tey mu ngi nii directement ñoom ñoo nekk nii ci maal bi nga xam ni moom moo nekk fii ci marché Malika dinañ dugg aussi fa fële nga xam ni jaaykatu jën yi fa la nekk dinañ dem tamit fi nga xamanteni fa la jaaykatu géej yi nek dinañ dem aussi fi nga xamanteni fa la jaaykatu lejum yi nek mais tamit duñu bayyi jigen yi nga xamanteni ni yor seen ay cantine def fa seen ay dal seen ay tissu di ñaw di def lepp li nga xamanteni ni liggéeyu jigéen la pour jappalé góor ñi ci biir kër gi lool nak nek la nga xamanteni euh, luñu contane la bu baax bés bi nak nek spécial ñu wara jël reportage jigen yi nga ño nek fi ci Malika marché Malika du dans seen doole mu nekk lu am solo soxna si salam salaamaaleykum ñu ngi leen di ziar di kontaan bu baax euh, di ñëw nag ci marché Malika di ñëw tey bés bi nekk bés bu spécial muy journée internationale de la femme bésu jigéen ñi Euh, K Média ñëw fii nag pour recueillir bu baax a baax seen nekkin fii ci marché bi euh, bés bi nga xamni moy mooy euh, bésu jigéen ñi ndax euh, xam ngeen bu baax lan mo waral le 8 mars journée internationale de la femme. waaw le 8 mars international de la femme moy bisu jigen ñi. te it ñu ngi sant yalla bu baax di julli ci yonent bi di leen ñaanal parce que tamit ay jigen jigen ñi dañoo bëgg ku leen fonk te vraiment yéen a ñuy jappalé bu baax. ñi ngi ñaanal nak suñu maire Talla Gadiaga parce que tamit daf ci japp bu baax parce que bu ci jappul won li lepp du am kon ñi ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yeen ñi tamit ñew taxaw taxaway bu rafet bi ci bisu sagal jigeni, ñi yeen ñi nak nga xamne da ngeen a juk pour sagal jigen ñi yal na leen yalla sagal amin kon euh, comme nim ko waxe yal na leen yalla sagal ki fekk nañ ko mom tamit defena da fay jaay ndekki ki nga xamne ni fay jaay ndekki war nañ la mëna Euh, euh, ndekki lii ngay jaay fii euh, ñu bëggoon ci ñaari kàddu rek ci bés bi nga xam ne bés jigéen ñi la. lan moo waral sa teewaay fii ci marché bi. ñu ngi sant yàlla bu baax. di ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant suñu ñaari waajur. di di leen sant yéen itam. di kontaan lool ci 8 bi. ndax lii sagu jigéen ñi la ñu tey bisu jigéen ñi la sagu jigéen ñi la. temu temu ren bi nga xam ne moom leen indi ci bésu jigéen ñi ñu ne dañoo bëgg lépp li nga xamante ne jigéen ci lay yëngatu ci lay yëngatu mu am ci ay jéego yi nga xamante jëm na ci kanam beneen bi tamit euh, ci biir thème bi mooy ren li nu mu waxtaanee waat ci thème jigéen ñi mooy bëgg nañ payoor gu góor am rek jigéen war ko mën a am est-ce que yow gëm nga loolu en tant que jigéen. ah war nañ ka mëna gëm dé ndax jigéen ñi su goor ñi xëyé 4h du matin ñoo jigéen ñee bokk auto yi di xëy ñoom tam di liggéey nak seen njaboot di liggéey jàppale seen borom kër yi kon war nañ ko mëna gëm ndax dañu jox ñun tam 4h du matin la ne yewu di di jàppale suñu borom kër yi di jàppale suñu njaboot kon war nañu mëna gëm loolu di ñaan yalla nañu yalla jappalé rek ma ñu wér ak wër la dañu mëna a jëm kanam ci kàttanu yalla ak baax mbaax ci kaddu yi rafetna kaddu yi rafetna kàddu yi rafet na ñu ñu ñu jël gis nga gis nga gis nga ñoom ñoom ñoom ñoom ñoo indi lii yëpp nga gis lii yëpp presque boo xoolee lu bari ñore woon na sax ci Malika mais léegi lu bari mu ngay jóge fële ca Ndoomoor ci diggante Bayax Béer Mbambilor Gorom ak Kër Ndiayloo gis nga maire bi moom tamit maire bu siiw la ci marché bi dañ koy jëlee na mu kan dama koy jëlee na moom maire la ma am te yaakaar naa bu ma waxee turam dinaa ko fàttaliku ndax man waaw kii mooy yaa aram saar moom lañ daan tooñ ñun ba nekkee xale ñu daan wax yaa aram saar mooray doomam fekk moom dafa amoon doom jam te moor njaay la tudd sama xarit la ñoo maase sama waay la mu nga fële ca bitim réew moom nag comme moor Ndiaye la tuddoon maire bi tudd Yaaram saar ñu ko daan café naan Yaaram saar moo rey doomam gaa ñi daw jëm ca kër ga di yuuxoo yaakaar dafa rey doom ji ndekete moor mooy doomam Yaram Sarr ñu ngi lay dalal bu baax ci K-Media TV waaw euh, di rafetlu aussi sa nekkaay ci marché Malika waaw ndax xam nañ ni marché Malika bu njëkk ba ba marché bii mhm. am nga fi taxawaay bu am solo lan nga mën a wax ci bés bi nga xam ni dañ koo jagleel jigéen muy le 8 xanaa kontaan ci rek mhm. tey ñaan yàlla sunu borom rek yal na taxawaay yàgg surtout yéen ndaw yi mhm. yéen ndaw yi takk seen doole ji di liggéey mhm. tooñu leen kenn tooñu leen mag tooñu leen góor tooñu leen jigéen mhm. xanaa di dund seenu ñaq du ngeen di fàq maan sàcc leen portable jàmbur kafu leen i saak xanaa góor góoru rek xale yi malika yi li ngeen bëgg yal na leen ko yàlla defal ci barke Seydina Muhammad yaaram xam naa leen yaaram waaw bésu tay bi jigéen moom lañ ko jagleel waaw bés bi tey ñu def ko ci ñaari thème mooy ñaari pàcc lan ko war a waxtaane waaw pàcc bu njëkk bi mooy jigéen war naa am ay jéego ci li muy liggéeyee. waaw loolu lan nga ci mën a wax. xanaa sant ci yàlla te dëggal li ñu wax rek. Mhm. ndax am nañ ci jéego yu ma sëkk. Mhm. ndax bande ak xale ba naga ni. noo mhm. ngi ci suñu jéego yi taxawuñu arrière di ci nàmpatal sunu njaboot. ni góor góorlu nag. di jaay di jënd ndax jaay jënd rek la ñu yaakaar moom la ñu xam te mus mosuñu see def dara lu dul góorgóor dunde sunu ñaq moom rek la ñuy dunde beneen thème bi waaw yaa aram waaw mu di ni ñu ni payoorum góor li ñuy pay góor waaw lolu ci thème bi la bok ñu ni jigéen war naa mën a tolloog leen di fay loolu tamit lan nga ci wax ndax ndax am jigéen sax mom duñu yag yag ba tollo góor nak duñu musa tollo ndax yalla mo def loolu xëy na rek di nga gis góor go xamni ni soldam jigéen nako upp ëpp di nga gis jigéen joo xam moo ëpp góor solde waye góor ak jigéen duñu musa tollo nak nanu bayyi ci karam nu ne ci seen ginaaw rek di leen jappalé rek di góor góoru ndax jigéen ni Sénégal lañu mo yaaram sar mom la ñëwoon ci place am Modou nga jël ko bu baax mom lo soxla mu wara dem ci tin rek bo ñëwé ci Yaram sar do di dem fenen. ndax place baangi ni nii ya allah yalla na lafal chat, guddal fan yu wéral cër bu baax a baax mu nekk ko am solo ci marché bi ñu fi moy al bi kay kay fi ñu jël ñu jël madame Ba madame Ba mo ngi ni mom tamit euh, nekk na nga xam ràññee nañ ko bu baax ci biir marché bi dëkk fii ci quartier Ansar nga xam ni quartier bi mu dëkk fi la marché bi nekk madame Ba tey jii bés bii di bésu jigéen ñi nga xam ni mooy journée internationale de la femme maanaam ci wàllum àdduna bi yëpp bés bi lan jagleel jigéen lan nga mën a wax ci bés bi. bis bi ba ma santee yàlla. julli ci yonente bi sant sama ñaari waajur. di nga tax ma tax muy tax ma ñëw fii di jaay ba nëgë ni ñun dañoo sant yàlla ñun jigéen ñi ndax ñun lu ñu sóob jigéen ñi rek la ñuy wax boo duggee ci oto yi daanaka jigéen ñi ngay gis bu fajaree jigéen ñi ngay gis pour jàppale suñu njaboot jàppale suñu borom kër ñu sant nañu yàlla nag marché Malika moom jàmm doo nga fi am bi ma fi ñëwee léegi yàggul de waaye sant yàlla rek maa ngi fiy jëlee sama wërsëg keneen ak fi jële suñu wërsëg ñun ñëpp ñu di bokk rek ñun ñëpp sant yàlla sant yàlla rek yàlla nañ yàlla suñu borom may wér ak wérle gu ñu mën a jaay jàppale suñu borom kër jàppale suñuy doom jërëjëf kooku mooy madame Ba gis ngeen réaction moom tamit bu baax euh, dañuy jublu rek directement fële nga xam ni fa la jaaykatu géej yi nekk ak jaaykatu jën yi waxtaan ak ñoom ñoom nga xam ni ñoo yor li gën a am solo ci biir marché bi Euh, waxtaan ak ñoom bu baax ndax euh, maire bii nga xam ni maire Khady Bala moom moo ngi nii nekk kam te ni moom tamit jàmbaari fàq tëdd la mu ngi nii maire Khady Ba jaaykatu jën ba am te ni kenn dootu ko présenté mu nekk fii nan dem ba ci place am waxtaan ak moom pour mu xam bés bi nga xam ni mooy bésu jigéen ñi bésu maire yi moom tey ji nekk na lu am solo fii ci marché Malika maire Khady Ba mu ngi nii maire bu am solo ci marché bi nga xam ne mooy marché Malika ñu war koo fekk ba biir place am waxtaan ak moom ci liggéey bi nga xamante ni moom lay def maire Khady ñu ngi lay tàllal micro bi ndax bés bii mooy bésu jigéen ñi ñu jagleel ko jigéen thème bi nag ren nekk jigéen lépp lu muy liggéey war na ci am ay jéego loolu lan nga ci mën a wax jigéen lépp lu muy liggéey mu war ci mën a am ay jéego ndax loolu da nga koy firndeel wala doo ko firndeel waaw ñun ñu ngi ñun ñun liggéey rek lu ñu xam te suñu liggéey bi tamit bëgg am nañ ci fierté bëgg nañu kuñ ci jàppale mhm. trois heures trois heures de matin la ñuy jóg mhm. nekk di wut di wuti rek loo xam ne si suñu njaboot luñu ko duñuy taseeg agresseurs yi lu nekk duñu taseeg ñoom mm-hmm. waaw léegi nag dañoo bëgg ku toog daal nañu dimbali te yàlla tax mm-hmm. ndax jigéen ñu sonn mm-hmm. nañu taayi nañu waaw aca wax leen beneen beneen beneen bi beneen question bi mooy waaw euh, ñaari thème lañ ko lañ jagleel jigéen ñi année bi waaw beneen thème bi ñu ni payoor bi góor di am waaw jigéen dañuy xeex pour jigéen di mën a tolloole ak góor payoor ndax jigéen mën na àgg ci njàmbarte ba war a mën a am salaire bi nga xam te ne moom la góor di am waaw waaw diim nañu waaw ndax jigéen ñi ñoo yor kër yi su dul woon jigéen ñi góor ñu sonn te jigéen ñi li ñuy def rek góor ñi la ñuy jàppale ak seen doom yi waaw bëgguñu suñuy doom taxawaalu bëgguñu ñu sonn waaw kon nag jigéen war naa war a taxaw tey fu góor taxaw waaw jërëjëf jërëjëf kooku mooy mère Khady ñu ñëwoon ci jaaykatu jën boobu war a ñëwaat ci beneen jaaykatu jën ndax mbir mi kii tamit ku siiw la ci biir marché bi soxna si noo tudd. man Fama Diouf laa tudd. ah Fama Fama. Fama waaw waaw K-Media moo ñëwoon fii bés bii nekk bésu jigéen ñi. ñu ñëwoon di recueillir seen seen i appréciation ci bés bii ñu leen jagleel. muy ñaari thèmes yoo xamante ne lañ def ren. Mhm. thème bu njëkk bi ñu di jigéen war am ay jéego yu mag mag ci li nga xamante ne la war liggéey. loolu lan nga ci mën wax. waaw liñ ci mën wax bari na wa ndax bis bi bésu jigéen ñi la mom mm-hmm. la ko sunu borom jagleel mom mm-hmm. la ko aduna jagleel mm-hmm. waaw ndax jigéen ñi fi ni jox leen seen gëdd jotna ndax ño nekk ci marché yi ne ci biir kër yi ño njabot gi ño xalé yi kon bok bis bi liñ ci mëna wax bari na sha allah waaw jox ñi sunu gëdd dal jotna na ni mu kay loolu rafa na ki tamit ah, xale bu jigéen bu ndaw la di soog a sëy moom tamit tey euh, mënoon na ni mënoon na ni man euh, dama am jëkkëru xale man na maa toog lu ne mu defal ma ko waaye moom dafa ni day jàppale borom këram moom tamit boo ñëwee fekk comme mu nekk au four et au moulin lan nga mën a wax ci journée bi nga xam ne moom lan jarjay jigéen ñi nga xam ni sa naataangoo bee wax na ci première thème bi mais deuxième thème bi dañ ni jigen warna mana am payoor ga am tane ni euh, bi gor di am ñu man ko tollale lan nga ci mëna wax lool. alaykum ma ngi leen nuyu di leen sant. di leen ci féete nak suñu feet suñu feetu jigen ñii nak jigen lu mu am rek. jigen lu mu am rek. warna ko lu gor wara am rek jigen war na am. fu gor mëne tak tubayam dem liggéey. jigen wara fa man tak sëram dem liggéey ndax buñuy ñuy liggéey ni suñuy njaboot ak suñuy borom kër tax buñ sa ñoom dañuy tëdd suñuy kër luñ bëgg suñuy góor defal ñu ko waaye buñ jàppee fi ñu jàpp fi mu neex loolu tax ñuy xëy ñëw ci marché bi daan suñu doole waaye ñun daal ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen sant di leen gërëm mënumaa wax ci lii loolu rafet na loolu rafet na ñu ñëw ba tey ci kii nga xam ni moom tamit xale bu ndaw la di Ndeye Ngone ñu gën koo xam bu baax man ngeen a ñëw jege fii parce que yéen rek la ñuy liggéeyal Ndeye Ngone moom mu ci place moom tamit nekk xam te euh, jigéen ju man góor la ndax euh, wane na ko bu baax a lan nga mën a wax ci bés bi nga xam mooy journée internationale de la femme du 8 mars. salaamaaleykum maa ngi nuyu sama mbokk jigéen yëpp. di kontaan ci journée bi nga xamante ni bépp dóor katuwaar gëm sa bopp. yow lañ ko defal. parce que tey jii képp kuy jigéen rek soo jógee di dóor sa waar di jàppale sa borom kër def nga li la war ndax jigéen moom bu daanewul doole rek. néewal ko doole day yomb waaye su ku ko fekk ci waar bi fa mu rek amoo droit nga koy doole. ban heure ngeen di demi la ñuy jóg bàyyi suñuy borom kër ca kaw ya. yéen a leen di jéggi dem. danaan leen di jaay may ñu jàll. Uh-huh. suñ ñu ñu jàll ñu jóg waaj sangu toppatoo leen doog dem defar xale yi ñëw marché. jërëjëf jërëjëf rafet na. ñi ngi ñaan yàlla nag. 8 uh-huh. mars bi dañ ko teewee ay ati ati ati at. Uh-huh. borom bi sàmm ñu suñu borom kër yi baye ñoo ñom ak suñu njaboot ba nu dem ci ba makka ya teral ci suñu waji barke yonent bi lolu rafetna koku mo kooku doon nday ngone ñu dem ñu dem parité ci ruq bale waaw yeen war nañ leen mëna jël waa ruq bi yaay boy ñu ngi lay ziar jëluma sama yaaji mom tamit jambaari faq nga xamni xamé nañ ko bu baax mu nek bi nga yeen yaay yeenako mom moy journée internationale de la femme lan nga ci mën a wax yaay booy. xanaa di sant rek. ndax ku fekkewul. doo dala jàmbat. dëgg la fekke rek a war a jàmbat. dëgg la di sant rek di bés bu ñu ñor nag. bés boo xam ne. ñu ngi ñaan yàlla def ci jàmm. fi jàmm. jërëjëf. jërëjëf yaay booy ñu def parité parité mooy yamale yemale dafa am solo ñu ñëw fii ci ruq bi jël ñii nga xam ni ñoom tamit ñoo nekk ci wàll wi. yéen mën nañ leen a jël yéen ñi ci ruq bi kan la ñuy jël xaaral ma ñëw jël la bés bi yéen ko moom xam nga li xew journée journée de la femme le 8 ma xool may ma ma jàll may ma ma jàll moom dafay spécial moom aussi ndax moom mii ci cuub lañ ko xamee woon waaw mu nekkoon kam ten di doon cuub ba siiw ci ñu xëy gisatuñ ko boobu ba léegi sunu yére yu bëri amatuñ koñ ko cuubal ndekete yoo mu ngi ci marché bi làqatu lan moo waral euh, nga bàyyi ci boobu ñëw ci marché bi ak euh, bés bi nga xam ni mooy journée international de la femme lan nga ci mën a wax. cuub gi dañ cee demoon di ci cuub. Uh-huh. waaye cuub day yàq yaram. Uh-huh. ñu dem ba cuub gi daanu na ndax ñu jógee Mali ak cuub yi ni cuubaat. Uh-huh. machine di ko génne. loolu moo tax cub gi daanu ñu daal di nañ dem ci marché ba comme ay liggéeykat lañu. Uh-huh. nañ seeti leneen loolu moo indi ci marché bi ñuy jaay. pomme de terre soble lépp a fi. Uh-huh. loolu rek nu fi indi journée bi nag ñu ñoo ko moom. Uh-huh. yàlla nu yàlla defal jàmm may nu fekk ay déwéni déwén yéen tamit yàlla yàggalee sunu kanam may leen nga fekk ay déwéni déwén waaw ñu ni thème bi jigéen war na mën a dem ba tolloo góor ab payoor moom la ñuy xeex ndax loolu euh, gëm nga war naa mën a nekk ndax

waaw incha allah dañ koy nangu <laughs> ñu dem kii kii Yumu Njaay la ak Mbayang Sow <laughs> ñu ngi leen di siyaar <laughs> soxna yi na ngeen def a ah, ñu ngi noonu maire yi aussi ñu jël leen ñoom ñoom maire Géej ñoom maire Géej ngi nii ñu jël documentaire bi ak ñoom maire Fatimata Sow ak sama yaay ju baax ji ñu ngi leen di ziar yéen yéenay jaay géej yi fii ci marché bi. waaw ñun de ñoo jaay géej waaw bés bi nga xam ne bésu jigéen la ñu jagleel ko jigéen ñu ni jigéen li muy yëngatu war na cee man a avancer lan nga ciy wax est-ce que loolu mën naa nekk wala warul mën a nekk. ah waaw mën naa nekk moom ndax ci la ñuy faj suñuy soxla ci lañ leen di dimbali yéen ñii suñuy doom mm-hmm. ndax yéen doog nga tax nuy daw di dem di ñëw luñ leen di ñaanal yàlla rek yàlla may leen wér ak wérle ubbi leen buntu wërsëg bi gën si yéen loolu rek la lan leen di ñaanal yal na yàlla sàmm leen may leen wér ak wér waaw mère Fatimata loo mën a wax ci loolu bés bi bésu jigéen ñi waaw waaw di ci dolli waar rek li sa yaay wax rek uh-huh. ñoo ngi sant yàlla di sant yonente bi di ñaan ci yàlla rek yal na nu yàlla jàppale rek ñoo ngi ciy daan suñu doole rek di dimbali njaboot gi uh-huh. njaboot gi doongoo ñu tax a jóg nag du leneen nag lu dul njaboot gi wallaay di leen jàppale rek nag ci ci kanam rek barke yonente bi nga xam ni moom lañ jagleel jigéen bayiwul xalé bayiwul mak bayiwul ndaw. xalé yi rek. Ah. xana bëgg rek seen ah. ñet seen ñi ngeen yor njaboot gi. ñu di leen jappalé rek. waye xam nga ni bu du woon lool fi duñ fi tok ndax fi mu ne dañu tedd ka jog rek. wallaay buñ fa desee dañu tedd ka jog rek. waye fi mu nekk nii ah yeen nañu jappalé ngeen mëna jubok seen seen jabar. jërëjëf am ah, mën yor seen doom. ngeen bokku mu té rek. ni seen i baay defan def leen ko rek. rafetna rafetna rafetna ñu mu ñay yow fekk nan la fi yow tamit nga yor sa tamaate sa bisab sa carotte ak sa supome ak sa pataas di dóor war lan nga mëna wax ci bisu yow mom da ngay sama xaritu xol yow loma laaj rek dina la ko wax inshallah ah, ñoo ngi sante yalla bu baax di dow di len jappalé bëgg ngeen dem ba yornu ba yalla teggi coono yi ñoo ngi suturu ci marché Malika ñoo ngi dakk suñu wërsëg bu ñu xëyee ba set ñaan yàlla xëy yàlla musalu ci seytaane xuloo wunu xeexunu di dóor waal rek nag yal na yàlla def jàmm ci barke Seydina Muhammad jërëjëf waaw rafet na waaw nee naa nañ koy teewe déwén yu bari yàlla may nu wér ak wér le macha allah jigéen ñi neex na yàlla nañ koy fekkee ay déwén yu yàlla may nu xewal yuñ ko mën a liggéeye ba di ko fekke yéen ñi koy liggéey yàlla may leen wér ak jàmm ci dajee nabil Moustapha jërëjëf ñu dem fële ca jël ñële buñ paree ñu génn ci biti mu ngi nii ba tey fii ci marché Malika gis ngeen marché bii ñun dong aussi ñoo ko fi am marché bu mel nii ah, kii Dieynaba la moom tamit nekk xale ba nga xamante ni jàmbaari fàq tëdd la Dieynaba jege sil fii ci micro bi nga may ñu deux rek ñëwal ñoo lu wax ci rek bés bi bésu jigéen ñi la xanaa kàddu sant ma yàlla ba ca kaw kaw kaw kaw a ba luñ ci am rek mu sut sunum jot seen bés bi loo leen ci wax xanaa sant yàlla rek di gërëm Mari Faye ak Amadou ak sunu góori marché yi xam ne luñ man rek ñoom ñoo tax ñu ngi leen sant ca kaw a kaw a kaw rek xam nga man maa mënewul ci wax loolu rek maa ngi kàddu sant rek yaay booy ñoom Badda ha ah, mi wari mayi no mbaɗɗa gurdu gurdu no mbaɗɗa affaire jaay nden alhamdulilah lan nga mën a wax ci bés bi nga xam ni bésu jigéen ñi la tey ñu fekk la fii ci biir marché bi ngay jaay te xam naa li ñu ciy am pour jàppale njaboot gi rek la lan nga ci mën a wax bésu jigéen ñi naa di sant yàlla di julli ci Seydina Limaamu ali salaatu wa salaam di sant suñuy ñaari waaju ñuy ñaanal ñi fi des yàlla leen yàlla may wér ak wérle ñu ñu jiituñu ñu yal na yàlla leen jéggal leen ñuy wane mbégte bu wér a wér a wér ci suñu marché bi suñu délégué yi jàmbaar lañu jàmbaar lañu lool di ko dale ci Baye Jibi Ndiaye ba ki gën a ndaw rawatina nag Amadou Ndione ak mari Faye ñu ngi kontaan ci ñoom lool ndax lépp ñooma ñun fii la ñuy toog ñoom ñooy lijjanti mu ñooy def yëpp ba yàlla def ñu xéxal ñu ba ñu tabaxal ñu suñu tabax bi mm. ñepp di ñu nong mm-hmm. ñu ngi ñaan yalla yalla nañ ko muurloo mm-hmm. ñok mbolem julit nak ñok mbolem julit yalla nañ yalla may fekke ak tal muccu ak muccu la jërëjëf jërëjëf kooku tamit mu ngi nonu nek jambar gis ngeen fi moy alu jigen ñi alu jigen ñangi ni ki tamit euh, ci buntu kër papam fa la nekkon don yëngatu di daan dolem waye ben organiser marché bi ñu ni nañ dugg ci bir mom tamit gis nga bo xolé ya aram sar rek xol ko da nga nan am na relève bu baax mu ngi nii macha allah ñu ñaanal lafal cat rek euh, di la laaj ci bés bi nga xamni moy mooy jigen ñi moy le 8 mars nga rek jigen dañ ko defal ñaari thème année bi ñu ni limuy muy liggéey war na ci mëna am avancement benen bi ñu ni Euh, li nga xamante ni mooy payoor gi nga xamante ni moom la góor di am dunoo bëgg ñu dem ba nga xamante ni jigéen buy liggéey li góor di liggéey muy fayeeku li góor di fayeeku ndax loolu ñaari ñaari thèmes yooyu lan nga ci mën a wax kontaan ci rek <laughs> di ñaan yàlla yàlla yott mottali lépp am nañu yàlla dooli sutura <laughs> yàlla mbarkeel nu <laughs> may ñu gudd fan ñu mën a jàpp si liggéey jàppale sunu njaboot lépp nit di nit di def daal te mën a jàppale njaboot ci jàppale njabootam. Mhm. yàlla na ko ci yàlla jàppale. Mhm. waaw lii nga xam ni mhm. moom moo nekk ci taabal bi. da ngay toog ñu indil la ko wala da ngay jóg suba teel dem wuti ji ko. damay gont dem wuti ji ko. ngoon gi. ngoon gi laay dem gont wuti ji ko. ban heure ngay ngay ngay ngay quitté. pour dem wuti ji ko. deux heures. deux heures la nii deux heures deux heures et ñibbi si ban heure. ñibbi dix huit heures. ñibbi si dix huit heures. su ma ñëwee fii naa nekk déranger la ba vingt heures ñu dem ñibbi sama kër. ban heure ngay jógaat encore. 7 heures. yow amoo temps récupération. mais sant yàlla. sant yàlla sant parce que gor. Uh-huh. lu mu nekk rek man caa fajal boppam soxlaam. Uh-huh. man caa fajal soxlay doomam te doomu aadama du ko yëg. sant yàlla rek mën naa ne tey jii nii may def nii liggéey nii uh-huh. di ci dóor waar maa ngi ci jàppale samay rak maa ngi ci jàppale samay mag te tey jii lii ma nekk nii mën naa ne mën naa wàcc yàlla ne mu mel ne monsieur le maire moo may fekk ni ma xam may dugalal naa moom moom laay xool sama portable mu dugalal ma leen moom it maa ngi koy sant di ko ñaanal yàlla fu mu bëgg yegg yàlla na fa yàlla yeggale billaay wallaay jërëjëf ah, la Laay Maxtaar jërëjëf Laay Maxtaar moom tamit euh, maire bi aussi tamit euh, jàmbaar la mënoon na ni yor naa ay xale yam dañu war nañ maa mën a wuutu waaye dara dañuy jàppale xale yi muy maire Soda euh, ñu lay tàllal micro da laaj tey lii ngay dagg lan la moom géej ban ban façon la géeju kong wala géeju sompat Mom, ci lan lañ ko gëna tamu ci ci ci mafé wala ci ci ci mbaxal ah neex na ceebu ñebbe ah neexna tam mafé mhm. ak mala ah di dal yakanaay mom moom yëpp mom boo ci defé dina dem waaw waaw. jërëjëf. wallaay. yaay booy lan nga mën a wax ci bés bi nga xam ne euh, jigéen moo ko moom tey. bis bi daal kontaan ci rek. Uh-huh. ndax yéen moom. Uh-huh. da ngeen fi nekk rek jàppale jigéen ñi. Uh-huh. ñu kontaan lool. di leen ñaanal nag yal na leen fi yàlla yàggal lool te ànd ak wér a xéewal ci barke Seydina Mohamed. loolu daal. moy suñu bëgg kontaan nak fossé lay japp yéene jàpp ba baax. waaw yow ya mom tabal ji. ma mom tabal ji da ngay jaay géej di jaay lujum. di jaay lujum. <laughs> ndaanaan nga yal na yàlla euh, doxal lépp yal na yàlla lepp lépp euh, kii tamit sama yum panju baax des fois ma gis ko ci biir 16 bi muy dem caaro yi ligne 16 bi nga xamante Dakar dem dikk muy dem caaro yi di jaayante di dem jëndi ay bagage di ñëw fi Assalamualaikum warahmatullah. noonu depuis. asalaamaaleykum wa ngi di nuyu di uh-huh. jox di bu baax si bisu jigéen ñi. Uh-huh. may sargal sama yaay. Uh-huh. di ko di di sargal sama mbokk jigéen ñi. di leen ñaanal yàlla képp ku si am doom yal na yàlla barkeel sa njaboot. yal na yàlla defal ñu xéewal defal ñu wér defal ñu ngi bu baax di ñaan bis bi nañ ko at yu di sargal nag sama mbokk jigéen ñëpp di leen di nan man la la jël lay lay lay maktar lay eh, yow tamit eh, place bi yow ya ko mom man lima lay gis lepp ndekete yow tamit fi nga laqatu di door war eh, door war rek bam mana jeex tak lan nga meuna wax ci bes bi nga xamni moy journée internationale de la femme nga xamni jigen rek lan ko jaglel tem bi nak ñaar la temu ren bi ñaar la tem bu njëkk bi dañ ni jigen warna am ay yokkuteef ci limuy liggey ci yoon bu mu ngi liggey benen bi ñuni payoor gi ngay pay góor jigen bu luto bay liggéey lu tollok mom war nañ ko mën fay lu mel non lan nga ci mën wax. wa deug la bisu jigen ñi dem mom xam nga rek ya ma gëna xam xana di sarga kep ko xamne jigen nga ne man rek di ñaanal gudd fan bu ànd ak diko ñëkke ci sama yaay. ak bépp jigen daal gis nga jigenum surtout jigenu Malika nak ñom ay jambar lañ door waar rek lañ xam ñu lu dul liggéey jaamu yalla daal luñu am seen waaw waaw. macha jërëjëf rafet na. kaddu rafet na. jël jaaykat intellectuel moom tamit euh, mu ngi noonu jaaykat intellectuel nga xam ni dañ koo fekk muy ndekki moom mu ngi nii euh, euh, jóge fële ca géejawaay daan yëngatu nag moom tamit mu nekk fii di Dóor waar defe na maire Nogay Mbay moom la tudd maire maire Nogay dañ koy jël dañ koo bett muy ndekki jël ko mu ngi noonu. maire Nogaye lan nga mën a wax ci bés bi nga xam ni yow lu bari da koy prôné koñ bi nga dëkk naan xale yi dañoo war a yëngatu xale yi dañoo war a yëngatu mu nekk bés ba am te mooy journée internationale de la femme. ah xanaa sant yàlla rek di julli ci yonent bi. barkaal di di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla ngeen góorgóorlu. te xam ne ñu ngi ci marché bi di góor góorgóorlu dimbali njaboot gi rek a tax. Mhm. Ah, yàlla nañ fi yàlla defal jàmm ak xéewal. defuñu ñu xéewal goo xam ci mëna a suñu njabot yeen yéen dimbali leen nak jappalé leen ak xéewal ñi waaw jërëjëf jërëjëf yaay boy yaay boy ñu ñu jël la <laughs> ñëw ñëwal jël sama yaay boy mom tamit yaay boy ñu jël la euh, mom tamit gis nga fi dal wax dëgg yàlla jigen lan lañuy joy jigen ju lan lañuy joy jigen ju mëna a togg ak ju mënta togg mais yaakaar marché bi ku fi duggu yakarna bu sa poos kiwee di nga mën a lu nga xam te wax deug yalla foko taj ndax lepp mu ngi fi géeju koŋ bi mu ngi fi géeju yenen façon yi ñu ngi fi yaay ñu fekk ko muy jaay géej di jaay diwtiir yakarna ma maafe ak suppu kanja ak yoy mom moy table ji bu baax ba lan nga mën wax ci bés bi nga xamni moy mooy bésu jigéen assalamu alaykum ma ngi leen di nuyu. di julli ci sang bu tedd sallallahu alayhi wasallam le journée wi mars bi nak mom journée jigen ñi la waye nak mois 8 mars bi yépp jigen ko mom di dorwarek waar rek dimbale njobot gi moñ fi tax di ñaanal xalé tamit ñu gorlu suñu doom yi góorgóorlu ñoom it bu ëllëgé ñu jël relève bi lool lañuy ñaan yeen tamit ñu leen di ñaanal seen taxaway yàgg fi ngeen yàgg di and ak seen yaay yi seen yaay tamit gungé leen ba ngeen ñëmé yéen li ngeen bëgg yàlla defal leen ko ci darajay nabil Moustapha sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf yaay booy waa jërëjëf rafet na rafet na rafet na ah, jëlal ma taabalu yaay booy ji moom tamit nekk xam te ni jàmbaar la war nañ ko mën a jël moom tamit mu sànni ci bés bi nga xam ne yéen lañ ko jagleel yéen sunu yaay yi yéen jigéen ñi sunu rakk yi yéen sunu mag ñi yéen sunu maam yi eh, lan nga ci mën a wax ah ñun de wax dëgg yàlla kontaan nañ ci yéen yëpp kontaan nañu bi ñaan ci yàlla yàlla dëgëral seen i tànk guddal seen i fan wéral seen i cër. marché bi wax dëgg yàlla ñun ñoo fi sant yàlla bu baax ndax ginnaaw yàlla lii lañu yaakaar te ñoo ngi bàyyi. di sant suñu borom kër yi nga xam ne ñoo nu bàyyi ba ñu mën a daw di am lii. ci kattanu yàlla ak yonente bi. ñu gis aussi ci marché bii li am caaroy am na fii lan ngay wax euh, jànk jeeg jeeg ji nga xam ne ñoo dëkk ci biir Malika euh, ci wàllum ndugg mi jaratul ñuy dem caaroy. jaratul ñuy dem benn baraag nañ ñëw fii ci marché Malika lan nga leen mën a wax. Ah, Malika moom dañ leen di wax ni ñëw dugg fii. mais nee na ñoom marché bi bu ñu fi ñëwee dañ leen di woo wala nangam nangam du nu ñëw ci marché bi waa ñun pire bi caaro di jaay rek la ñuy det la ñuy eh, kii fii. Mhm. prix bi caaro di jaay rek moom la ñuy jaay ci balance. Mhm. waaw waaye par yenn saa yi dañ ñu fi bàyyi dem caaro gis nga marché bi ni mel heure bi waroon naa fekk ñuy buuxante mais buuxante wu ndax ñëwuñu ci dëkk bi Malika xajuñu ci marché bi mais ñëwuñu ci dëkk bi waaw ñooñu jàppale wu parce que dama gis taabal bi am nga soble bu fii am nga soble bu bitim réew am nga bu mbooro am nga pombiteer bu sew bi am nga bu dijji bi am nga pataas am nga carotte am nga nawe am nga basanse am oignon am lépp mais ba léegi nii gisaguma ñuy buuxante ci place ci Malika la rek. Uh-huh. waa Malika ñoo ñoo bëggul seen wàll parce que dañuy dem bàyyi ñu fi. du uh-huh. ñu duggee fii mais fii xam nga ne ku fi ñëw dinañ la jaay loo xam ne doo paas dem paas Thiaroye paas 400 mbaa nga paas 800 uh-huh. ndax boo jëlee taxe dangay ngay bokk bokkuloo taxe bi 500. boole ceeb coono yi waaw waaw coono yéeg kii po bi loolu yëpp ñoom sóoraale wuñ ko dem ca moo leen gënal ñëw jënd ci ñun. jërëjëf dina yegg bu baax a baax gis ngeen loolu kooku doléance la joxe doléance bu tar doléance bu metti ndax gis ngeen. taabal ji boo fi ñëwee boo bëggee tamaate bu mag bi di ko am nga mën cee def euh, salaat bu baax boo bëggee soble mbuus na ko am na ay kilo am na cent franc am na deux cent nga bëgg karoot bu dijj bi mu ngi fi karoot bu sew bi mu ngi fi nga bëgg basante ak jaxuta ak kaani xeeñ kaani saddaam yooyu yëpp mu ngi fi mu defal la aussi tracé la lii di karoot bi daal di am lépp li nga xamante ni moom la jigéen di wut pour mu mën a dem ci cin li mais tamit ça tarde ndax gisuñu clients yi clients yi ñëwuñu ñu ngi leen bàyyi dem ba Caaroy dem ba benn baraag di fa nduggee loolu nekk la nga ni yanuwul maanaa gis ngeen sama yaay ji heure bi tamit waroon na fekk palaasam bi ñu fiy buuxante mais tey gis nga waa Malika dafa mel ni ñoom du ñu nduggee fii nga xam ni moom la ñu dëkk ndax tey boo gisee daxaar ji nga gis ñebbe ji gis euh, carotte ji gis nawe ji limon bu dijji baa ngi fii nga xool lii nga xam ni moom mooy basanse bi mu ngi fi yaay lan nga mën a wax ci bés bi nga xam ni moom lan jagleel jigéen ñi tey ji ñu waroon nag tey ji jigéen ñi Malika yëpp booloo ñëw nduggee si marché mi mu xumb benn yoon te tey gisuñu loolu lan nga ci mën a wax. waa sunu sunu marché moom dese naa xumb wax dëgg neex yàlla sunu marché moom dese naa neex xumb dañuy yor njaay mi ba njaay mi day yàqu sax ñu dem di ko tuuriwaat wala ñu koy xonta ay xar. waa Malika bu ñu naree dugg ñëw biir Malika dañuy jóge fii dem ba yeneen koñ ñu fay ndugge wala ñu dem euh, Kër Massar wala ñu dem benn baraak. loolu lan moo ko waral lan nga jàpp ni moo ko waral. ah ñun de dañuy ñëw jënd di ndugg waaye xëy na xëy na xëy na ñoom gisuñu seen bopp wala dara waaye te fii de li ñuy wër lépp li ñuy wër ci àll bi yëpp ngi marché Malika de te suñuy loxo wax dëgg yàlla dëgërul li ñëpp di jaay rek la ñuy dañuy ñëw rek investir xam nga ñun jigéen ñi moom dañuy ñëw di jàppale suñu borom kër yi euh, waroon na fekk suñu kër ñuy tëdd mais heure bi day fekk ñu ñëw di jàppale suñu jigéen ñi surtout suñu 8 mars bi nga xam ñun ñooy borom mhm. feer ci nag nekk borom nag bëgg koo tanir nag jàpp ci ba mu dëgër xam ne ñun moom bokkuñu ko kenn suñu bis la wax dëgg neex yàlla bis bi moom suñu bisa ñoo ko moom maa la wax loolu kontaan nan mu ngi noonu loolu nekk na lu rafet ñu dem nag euh, daal di jubal ah tey jour dañuy ñëw foofu ñu ngi ñëw ñu ngi ñëw <laughs> waaw ñu ñëw ñu ñëw ci biti daal di def parité bi yaay booy kontaan nan moom tamit gis nga ko ñoom tamit mu ngi nii soble bu dijj bi boo ko soxlaa da koy am fii ndax journée 8 mars bi la jigéen ñi Malika yëpp dajaloo fii ci marché bi nga xam ne lépp mu ngi fi ñuy ñaan nag euh, ñëpp ñëw daal di ñëw di ndugg si ci biir marché bi ndax tey waroon na xumb waroon na dagan ñu ñëw génn ci biti jël leen ah président baa ngi nii. kii nag il faut ñu jël ko deux minutes mu mën a wax ci jigéen ñi nga xam te ni ñoom la jiite ci marché bi gis nga doon doon wàcc rek dajeeg moom muy Amadou Amadou lan nga mën a wax. ci journée bi nga xam ni moom lan jàddee jigéen ñi. ñu fekk ci contexte bu day waar muy jàppoon nañ ni tey. marché bi dina fees dell ki jigéen ñëpp bàyyi fi ñu doon duggee ñëw nduggee fii mu nekk thème ba xam te ni ñëpp dinañ ci gratifié wu ndax marché bi boo ñëwee lépp luy wut caaroy am na fii lan mooy problème bi ba nga xam te ni euh, doomi Malika jigéen ñi duñu ñëw nduggee fii nga xam ne moom mooy Malika dem ba caaroy te li ñuy wuti ji yi li ñuy wuti ji benn baraak am na fii macha allah baa leen sant di leen nuyu bu baax baa di leen di leen dalal si marché bi euh, yëf yi xaw na maa bett lool parce que da nga ma fekk ma doon yéeg ak DJ dañu organiser 8 mars bi ci kaw décoration bi base bi ci kaw la nekk boobu laa doon dem dem ak moom fii mais comme ma grande surprise comme yëg si nga comme ni ma mel ak yow rek foog ma jéem la may deux minutes yi ma ñaan rek ñu yeggale euh, marché bi tey si boobu nga gis ni mooy sunu marché marché Malika fierté la si Malika parce que département bi di nga wër óol bu mel ni amu fi kon donc am na loo xam ne lu bari am nañ ko si biir marché bi ñu bëri bu ñu jóge fi dem marché benn barak wala Kër Massar di ko fa jënd ji mhm. man jàpp moom fu mu ne xeeb sa bopp rek mais la ngay wëri fee am na fii nii am na fi kon donc pour sukkali sa dëkk dangay ngay fa nga dëkk nga war a jël boo wuti jeefee fii nga war a jaayee fii mu jeex fii loolu mooy yoon mais nga li nga war a jaay fii nga di ko yóbbul keneen boo ne yaa ngi doxal sa dëkk doxaloo sa dëkk sukkaloo sa dëkk ñay kaas ëllëg waroo cee kaas ñay war a fa ñuy nase waroo faa taxaw parce que ñi njëkk yàq ci nga bokk kon donc war nañu mën a góorgóorlu suñu jigéen lan ñu baax lan ñii suñu yaay lan ñii suñu doom ñii suñu soxna lan bëgg naa ñu dellu si marché bi ñu ñëw nag ñu góorgóorlu ñow delluwaat si marché bi ñëw di jënd ndugg li ñu ndugg fi di ko yóbbu ndax fi macha allah mm-hmm. waaw yàlla def na am nañ fi ñoo xam ne tamit dañ daan dem wëri ay kaas kenn xamu comme ça am nañ fi jaaykatu kaas boo xam ne macha allah lépp ngi dox fu mu nii lu bëri dañ daan génn di ko dem jëndi ñu ngi waaw macha allah jërëjëf jërëjëf kooku mooy président muy Amadou nga xam ne si délégué ji marché bi la nekk nekk ku am importance ci marché bi moom ak Baye Jibi Ndiaye ñu nekk ñaar ñu am importance ci biir ndax Baye Jibi Ndiaye la relève a déjà été assurée mu nekk am te ni xale la moom te ni mu ngi topp ci ginnaawam ndànk-ndànk di ko doxal ni mu ko war a doxalee ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm bu baax ñu dem ci maam booy na def mbaa bés bi kontaan nga ci bu baax naa kontaan naa jigéen ñi la waaw waaw dégg la dégg la loolu kay dégg la mhm. dégguma olof bu baax. loolu moo tax waaw. ma yem fii yow suma doom ñu jël ñaar ñi ci kantin bi après ñu génn nii daal di koy jeexale noonu. mu nekk xam te ni ah jigéen juy jaay yàpp moom tamit mu ngi noonu place bi boo bëggee yàpp tamit ci biir marché bi man nga fi ñëw soxna si dañu ñëw fekk nga def ay saam muy ay laxas ak ay yeel pour supp euh, bés bii nga xam ni mooy bésu jigéen ñi lan ngeen ci mën a wax en deux minutes rek euh, euh, bés bi nga xam ne moom lañ cëralee jigéen ñi. Ah, ko jigéen yëpp ko moom ndax jigéen ñi ñooy yaay. <laughs> waaw loolu la xam na. <laughs> mënta wax wax ju bari rafet na na tamit eh, ñu ngi ñu tamit mu am ñetti cantine yam te ne ay jigéen yi jàmbaar lan ñoom tamit boo ñëwee loo fi fe loo bëgg rek am na fi surtout ma koor gi gis nga ni mu légaale nga xam ni boo ci biir jël ko da ngay kontaan da ngay bëgg ci ñoom mu nekk place bam te vraiment. dañ nga ciy kontaan bu baax soxna si. tey di 8 mars. Mhm. ñu jagleel ko jigéen ñi. Mhm. lan nga mën a wax ci bés boobu nga xam ni moom lan jagleel jigéen ñi. xanaa kontaan ci rek. Mhm. waaw parce que jigéen moom. mën nañ ah, ah, mën nañ ko jagleel at atum lëmb sax parce que benn bi sax ëpp na ci moom mais comme jël nañ benn bis jagleel ñu ko dañ koy jël ñu moom ko ñu téye ko def ci li ci war yëpp waaw bi ren dafa lay laal ndax dañ ni jigéen lépp li muy yëngatu war na ci mën a am ak yokkuteem ndax loolu gëm nga ko waaw waaw bu baax sax <laughs> ma ne ko bu baax sax waaw jigéen moom lu mu song rek da koy daan incha allah parce que Pastef bi ci jigéen moom ñëwul sax ci góor beneen bi muy ñu ni payoor bu góor am rek mhm. Euh, bu jigéen liggéey liggéey boobu ba tolloo ko góor comme jigéen di militaire góor di militaire war nanoo mën a tolloo ak payoor mhm. euh, loolu tamit est-ce que loo gëm la ah lu ma gëm la kay mhm. lu ma gëm la mhm. parce que jigéen moom dafa jàmbaar lu mu song da koy daan lu mu ci mënti doon rek bu ci duggee ak fulla fay fayda rek ak pasteef bu man rek da koy daan incha allah yéen a ngi jàppale borom kër yi tamit incha allah waaw bu baax a baax buñ jàppee fii ñu jàpp fa ca des ah, na ñu ñëw

nga xamni koor gi warna mëna neex bu baaxa baax ah, eh, lan nga mëna wax ci bëss bi nga xamni ne lañ jaglél jigen muy la kontaan kontaan ci rek ndeysaan kontaan rek lañ ci def defuñu dara lu dul daal nañ ci japp rek sagal jigen ni mhm. te jigen ni bëss bi rek lañ ci am mhm. waaw muy 8 mars muy tam bi ñu ni 8 mars bi eh, jigen lepp limuy liggéey rek warna ci mëna am ak def waaw lool lan nga ci mëna wax ah waaw jigen ak loo munti liggéey rek boo ci gisul yokkute daal war ngaa xoolaat sa bopp. Mhm. waaw ndax looy liggéey rek yokkute daal lañ ci yokk lañ ci war lañ ci war a gis daal. Mhm. waaw clients aussi est que ñu ngi ñëw bu baax a baax. waaw ñu ngi sant ñu ngi sant yàlla moom. Mhm. waa ñu ngi sant yàlla mais bu ñu a ñëw tamit mu gën a baax mu gën a neex. Ah. day gën a neex lan ngay wax jeunesse su Malika mooy jigéen ñi nga xam ne ni ñoo war a jënd mbir yi ngeen di jaay te dañuy gis des fois ñun jënd ko caaray wala benn baraak ah. wala yëmbal ñoom lan nga leen di inciter pour ñu ñu bàyyi ah, te ne Malika la ñu am mhm. nit dëkk bi nga am rek ngay tiitaroo mhm. te dañoo war a ñëw jàpp ci combat bi mhm. te Malika rek la ñu kon nag ci marché bi daal képp kuy jigéen daal na ñëw daal di si ñun ñu bàyyi yeneen marché yi ñuy defee te ñun ñoo ñu war a jàppale rek jërëjëf loolu rafet na ñu jël la une minute taxaw ni moom tamit nekk jàmbaar jam te ni tay bes bi yéen yau ko mom yow gison nan la da melni seras nga nekkon di jaaye nga dem don fa jaay ay lahas daan fa jaay ndokh daan jaay lepp nga dem ba mu yàgg gis yoon wi metti na lol nga dina investir fi nga xam fi nga dekk moy Malika euh, lan nga lan nga meuna wax ci bes bi nga xam moy euh, journée de la femme bala nga ci ñew nga wax li nga xamante ne moo waral sa investissement au niveau de Malika. alaykum wa mbokk yi. Mm. maa ngi leen di nuyu di leen fay. képp kuy jullit ak képp kuy jigéen. ak képp tey ku bokk ju journée bi ngay jigéen rek. bég naa tey kontaan tey suñu journée la. tey suñu journée la man Seras laa nekkoon fa laa doon jaaye mais bi may jaay Seras ba ma demee dama dema dem neex na nag normal na xéewale na. waaye da damaa xam ne fii laa dëkk Malika laa dëkk te dëgg dëggay njëkk dëggay mujj ma teer si sama dëkk ànd ak yéen ci marché bi nekkee marché bi neex loolu yaatu lool nag te ñun ñoo ko mën a neexal ñun ñoo mën a defar suñu marché buñ defaree suñu marché day dem buñ ko neexalee day neex te barki Sëriñ Bamba sax nag dafa neex ba pare nag mhm. dafa neex ba pare mhm. ndax jëx-jëxi na neex na laf cat macha allah looy wax client te ñoo te ñoo ngi ciy gis suñu bopp carrément mhm. a ah, macha allah laf cet man maa ngi ciy gis sama bopp wax dëgg yàlla te dama naan nag client yi nañ gën a ñëw nit ki fi nga dëkk yaa koy defar nañ bàyyi teeg bi di dem marché Kër Massar di dikk fii suñu marché bi di ko def ba mu baax ànd ak clients yi ñu jàkkaarloog ñoom jàppante nekk benn mhm. ndax marché fi mu ne ni macha allah laf cat boo ko nee jàkk rek xam ne marché la wax dëgg yàlla kontaan naa mooy Aminta moom lañ dàkkantale jigéen ju man góor dañuy dem jël ki nga xamante ni mooy jaay fëgg jaay bi après ñu génnee ci bunt bi fële daal di jeexale ci fii nga xam ni moom mooy marché Malika ñu dem waaw euh, euh, dañuy continuer rek ba tey muy 8 mars bi ñu ñëw fekk kii nga xam ni mooy madame mbay muy jaaru jaaru bu xam naa sedd bi def ko jàpp muy bés bi nga xam ni mooy la 8 mars ñu bëggoon nga sànni ci ñaari kàddu bés bi nga xam ne moom lañ jagleel jigéen ñi. waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen njukkal di delloo sant ak gërëm ah tey moom bés bi suñu bés la moom tey jii bés bi suñu bés la ndax marché boo fi duggee boo fi génnee téeméeri jigéen fukki góor nga fi génn ñu ngi nii nag daawuñu ci dara ci marché bi. bu nu xëyee jaay sani boyal jaa ji jaaru naan sunu attaaya ànd bokk nday bokk baay te xam ni lu dagg rek morom ma lay wari fii jigéen joo fi gis rek moroom lay àndal ba nga ko doon xam nit ñëw fi laal fi benn jigéen ñun ñëppay jug ndax dañoo mànkoo ànd bokk ndey baay di wut lu ñuy jeex pour yëpp kër ga kër ga di jàppale sunuy sunuy jëkkër sunuy borom kër beneen bi mooy yow Kër Massar nga jógee ñëw fii waaw man ñu gis jigéen yi Kër Massar biir Kër ma la ñuy duggee. waaw ñu gis jigéeni Malika boo duggee ci marché bi loo bëgg mu ngi ci biir marché bi mais gisuñu client loolu lan moo ko waral. ñàkk gëm seen bopp. Mhm. ne ku nekk da ngaa war a ñaan yàlla fa nga dëkk. nga suqali ko ba mu jëm kaw. nga mhm. gis ci gis sa bopp. ndax ku wàcc Malika dem du gijee benn baraag. Mhm. bu ñuy sédd waa benn baraag duñ la sedd ku wàcc Malika dem caare bu ñuy sédd waa caare duñ la sédd gisuñu kenn. marché baa ngi ne gisuñu kenn yàgg gisal sa bopp buñ toogee dañ naan attaaye segg suñuy café di naan booyal sunu ànd di jaaro jërëjëf waaw kenn xeexu nag ku du sunu naw lay jigéen te jigéen daa war a jàppale moromam fii lépp a ngi fi jërëjëf madame Mbaye mbër mbër noonu moom tamit eh, nekk fii di liggéey liggéey bu am solo eh, mbër duñu la sànni ñaari kàddu rek nga wax ci bis bii ñu jagleel jigéen ñi parce que yow fi ngay liggéey presque jigéen ñu bëri tamit seen place yi ñu ngi fi nan ngay dundeek ñoom ak bis bi lan nga leen ci mën a wax waaw di ziar ñëpp di baalu ñëpp àq rek di wax ne moom dëgg yàlla macha allah ñu ma nekkal fi moom wax dëgg yàlla jigéen ñu baax na daal di leen ñaanal suñu borom defal leen taw baax a baax di ñaana ñaanal lépp nu daal seen kër yi suñu borom defal ci barke Cheikhul Khadim la jaajëfalee tamit grand frère. yaa ma gën a jaajëf. rafet na waaw rafet na rafet na kooku mooy mbër mbër. waaw yaay booy euh, muy journée bi nga xam ne mooy 8 mars ñu ñëw aussi sa place bi pour man la laaj euh, euh, ci bés bi nga xam ne moom lañ jagleel jigéen lan nga ci mën a lan nga ci mën a apporter bu baax a baax. waaw ah, maa ngi nuyu ñëpp di leen sant di leen gërëm ak yow mi nga xam ne tey yaa taxaw taxawaay bi di ñaanal waa marché Malika yëpp ak euh, departement Kër Massar bi yëpp ndax tey ñun ñëpp ñoo bokk lii taxawaay bi tey ñoo ko bokk ñu jël ko nag sargalee ko Malika jox ko Malika mu organiser ko kon loolu dañuy sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di ñaan nag lii yàlla dañ koy def at yu baree baree baree bari jigéen nag moo moom bis yëpp tey xëy na dañoo jël bis bii rek moomale ñu ko ñu moom ko ñun kese waaye bis yëpp jigéen ko moom ndax bis yëpp bisi jigéen ñi la ñoom moom lépp te ñun ñooy defar lépp toujours ñooy def sant nañ góor ñi gërëm nañ leen ndax fu ñu gestu rek gis leen ci suñu ginnaaw ñun daal li ñuy ñaan yàlla nañ ko fekk at yu baree baree bari di ñaanal nag suñu délégué Mariama Faye ak aamadu ak Baye Jibi Ndiaye ñi ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp di leen sant di leen gërëm ndax seen taxawaay rafet na taxawu nañ ñu fu ñu mën a dem ak fu ñu mënta dem yëpp ñoom ñoo fay dem taxaw fa kon ñu ngi leen di sant ñoom ñëpp di leen gërëm di ñaanal waa marché bi yëpp di ñaan marché Malika yàlla na jëm ca kaw ca kanam ci darajay Seydina euh, Mouhamed dernier mot lan nga mën a lancé euh, jeunesse su Malika muy maanaam jigéen ñi muy maanaam góor ñi muy mag ñi muy ndaw ñi ndax dañuy gis marché bi boo ñëwee loo bëgg am na fi mais duñ gis client yi Euh, te ñoom li ñuy wuti ci biti am na fi lan nga leen di si lan nga leen di woo. waaw boo gisee marché loolu moo koy suqali muy ñi dëkk ci dëkk bi mm-hmm. tey boo dëkkee ci dëkk bàyyi sa marché dem di jëndi feneen yaa ngi rey sa marché mm-hmm. te ku rey sa marché yaa ngi rey sa dëkk mm-hmm. ndax liy jóge ci marché bi ci dëkk bi lay dem ndax maire bi moo koy encaissé te bu kennewul ci marché bi bu jaaykat yi jaayut maire bi du encaissé dara kon suñu maire yi day dellu ca ginnaaw te dañoo war a ñaan luy développer Malika kon jeunes yi dañ cee war a jàpp surtout jigéen ñi boo jógee fii ne da ngay wuti lu yomb dem Kër Massar wala nga dem benn baraak yaa ngi rey Malika. kon donc euh, ngoon fi ngeen ko war a feetee. discours boobu est-ce que euh, di ngeen ko mën a prôné bu baax a baax le délégué di du marché mu mën koo teg ba nga xamante ne di ngeen mën a sensibiliser la population malikawaas wax leen ñi yi ngeen seen cër. normalement mhm. parce que mari Mariama Faye mhm. ci lépp lay taxaw mhm. ci lépp lay gëstu ci lépp lay xool te dara ñoru ko nag lu dul marché bi dana ci sonn ci yaramam dana ci sonn ci poosam dana ci sonn yit ci xelam toujours mi ngi ciy daw kon yaakaar naa ne loolu lépp dina ci taxaw te dina ci wax. Modou gis nga am na ay jàllaabi ci biir nga xam ni koor gi dina baax ci jigéen ñi dina baax ci góor ñi gis nga yëre yi yëpp mën na julli. nga am ni xale yi aussi am nañu am na ay lido lido yi tamit dina ñëw ci kanam tuuti yooyu yëpp mu nekk la xam te ni lido am na fii nga xam ni yooyu yëpp dafay dàq koor am na soble baa ngi nii góor ñeek jigéen ñi ñoom ñoo ko bokk géej gaa ngi noonu gis nga mu ngi noonu moom wax dëgg yàlla jàmbaar la liggéeykat la am solo bu baax a baax ci marché bi ñu fekk ko fii ci place bi képp ku bëgg en gros mu jaay la ku bëgg par détail mu jaay la nekk xam te jigéen ju man góor la nga am ni yëngatu na depuis sa jeunesse ba tey ji loolu la continuer ñu lay tàllal micro ka media TV nga tëjee ko li nga xamante ni moom lañ doon def benn reportage au niveau de cette 8 mars bi nga xamante ni moom lañ def fii ci Malika. asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen mbokk yi ñoo ngi leen di euh, gërëm di leen di sant di leen di baalu àq di leen di baal àq. di sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa salaam. Mhm. di sant euh, suñu waa marché surtout. Mhm. sant nañ leen bu baax man maay Mariama Faye di del délégué délégué bu jigen fi ci marché Malika man la marché Malika terminus tek ci encore di présidente départementale des délégués de marché du département de Kermasar bala ma maa yegg ci fenn nak damay nuyu suñu association bi yépp te président mam Balla mam Balla mbay di président bi teg ci encore ñi nga xam ne ñooy euh, ñooy kilifa yi nga xam ne ñoo seq euh, département bi. Mm-hmm. ñuy liggéey nag pour département bi. Mm-hmm. di liggéey pour commune Malika. Mm-hmm. ndax ñun kat lépp lu ñuy def rek commune Malika moo ñu saf. ñu di ci liggéey bu baax nag te suñu monsieur le maire nag yàqu ci dara. nekk ku ñàkk ki ñaan yëkkati dooleem yëpp ak li mu am yëpp investir ko ci suñ première édition bi nga xam ne moom la ñuy représenté tey ci Malika. ñu ngi def suñu première édition 8 mars pour département bi yëpp léegi ñu yëkkee ko fii nag. au niveau de Malika. la mhm. commune Malika. Mhm. monsieur le maire de parrain parrain bi ndax maire ba fa commune maire maire de l'arrondissement moo parrain bi notre parrain Nous avons ci marraines nous madame Zara Zara Thiam Premier première madame Salimata Gueye mhm. ci madame maire Fat Doumbouya Fatoumata Doumbouya mooy beneen marraine bi léegi nag ñu ciy rendre hommage nag suñu benn délégué bu ñuy naan délégué maman Yacine moom moo nekkoon délégué marché ay nomadi bu Kër Massar marché bu mag bi yàlla dafa def mu làqu temps yi rek nekkoon mag bu jàmbaare nag di fu ñu taxaw rek mu nekk mag ba pare taxaw duñu teete ñu di ko rendre hommage di ko ñaanal yal na yàlla oyofal suuf si kawam ya xam sedd euh, alaxira te fa mu jóge gënal ko fa muy jëm gënal ko fu mu jóge ñu sant yàlla bu baax mënuñoo conclure nag mm-hmm, mm-hmm. te santuñu nag Pa Jibi mm-hmm. suñu mooy suñu délégué marché Pa Jibi Ndiaye mooy suñu délégué marché ñu ngi koy sant bu baax ndaxte tey nee nañ nee nañ boo mënee dara mag ya ci boppam ñoo ci jàpp moo tax nga mën dara ndax Pa Jibi dafa di mag nekk suñu délégué ba pare yëkkati yëpp teg ko ci suñu loxo man mu teg ma ci jigéen ñi Amadou Ndione mu teg ko ci góor ñi mm-hmm. dëgg-dëgg duñu tette bu baax a baax mu teg ma ci jigéen ñi teg Amadou ci góor ñi dëgg-dëgg bu baax a baax nga xam ni tey journée bi yéen seen journée la mm-hmm. lan nga mën a wax ci euh, par rapport ak njaay mi nga xam ni moom ngeen di def lan nga ci lan ci mën a tënk bu baax a baax lii nga xam ni mooy gejj gi mooy yéet bi ndax euh, clients yi ñu ngi ñëw bu baax waaw loolu balaa ma cee àddu nag dinaa la wax ne fête bii ñuy fête tey 8 mars du feetu lek du ou nan mais feetu gëm say droit la ndax dafa amone ko xam mom moko xéxone ba fi bu ngone di ngeen ko dégg ci reportage bi lan mo waral 8 mars waaye dima ci adun touti rek té marché marché li ci nek nag njaay mi ak njënd mi vraiment ñu ngi gor góorgóorlu bu baax client yaangi ñew ñun ñu ngi ci suñu marché ñu ngi daan suñuy doole vraiment revenu yaangi wacc ñu kontaan ci boox bu baaxa a baaxa baax lu ñuy ñaan rek dañuy ñaan gouvernement bi na ñu jàppale nag jàppale ñu ci financement yi mhm. financement yi surtout mhm. na jàppale jigéen ñi ci financement yi ndax jigéen ñi ci boppam mhm. ñoo moom marché jigéen ñi ci boppam ñoo moom kër yi jigéen ñi ci boppam ñoo moom xale yi éducation xale yi jigéen ñi yar bi ñoom ñoo ko moom kon boog ñu jàppale bu baax njënd meek jaay mi nag xam nga boo amee bagage rek il faut nga jarle moo tax ndaxte nit ñi li ñuy jaay nii nit yi dañ koo soxla ndax lekk la lekk bi ñuy jaay il faut que nit ñi utiliser ko jigéen ñi utiliser ko moom kay moo tax itam ñuy ñaan nag gouvernement bi dool dolli ñu kattan mu ngi def nag mhm. waaye nañu dool dolli kattan ci mhm. njaay mi ci ci financement yi dimbale ñu itam ci faju bi mhm. faju bi gouvernement bi bu mu ko fàtte nañu dolli faju bi waaw li des yëpp nag bu ngoonee bu soobee uh-huh. yàlla ak yonent bi dinaa ko teg yëpp uh-huh. xool leen ne suñu droit lii la uh-huh. te lii lañ doon kaas. jërëjëf jërëjëf yéen tam ñu ngi leen di jaajëfal di jaajëfal bu baax a rafet na rafet na waaw euh, ñu ñëwoon aussi tey jii nii mu nekkoon reportage bu am solo fii nga xam ni mooy marché Malika liñ ci gën a jàngat journée bi jigéen ñi ku nekk wax na ci li nga xamante ni moom ngay jaayee wax nga aussi ci journée bi nga xamante ni moom lañ jagleel jigéen ñi euh, wax nañ aussi ci marché bi ni muy doxee mu nekk la xamante ni conclusion bi. man li ci conclusion euh, euh, conseil lay doon moy la jeunesse malicoise y compris les filles les femmes les les les hommes lepp li nga am te ne yaa ngi koy wuti ci marché yi nga am mo nek les marchés environnants am na fii ci Malika ñuy wo la population malicoise ñuy ñëw ci marché bi di fi def sen alal pour marché bi mëna dox lool lañ doon au niveau de ce reportage pour cette journée du 8 mars journée internationale de la femme 2024 ba beneen yoon